القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبل النجاة وراغبا jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñu nuy topp ci Ali Imran TV dinu may nopp ak taataan mboolem xibaar yi fi yey jóge li qalaa'id al-iqyaan taqra biha al-Qur'aan sahlan layyinan ñu dikk ak yéen jëm ci mbirum Cheikh Bara Ndiaye ginnaaw nag bi ñu ko digloo ba noppi ay layookatam di ay awokaam dugal nañu càkkute fukk bàyyik ne gëndiku àttekat bi itam nag joxe na ndigal ngir ñu delloo ko ay jollosoom di ay téléphone am Cheikh Bara Ndiaye di amal ay jàngat nag ca Walfu TV moom janoo na ni ki démb ci altine ji yamoo ko ñaar ci fan ak ñeent ci weeru juillet ak àttekatu deuxième pekk bi di deuxième bureau di nag Mamadou Seck mi ko ko doon diglu nag daal ngir gën a xóotal euh, way ndare wi te mooy dossier bi ginnaaw nag euh, ba mu ko digloo ba noppi euh, ay layookatam dugal nañu càkkute fukk bàyyik néggandiku ñeel seex Bara Ndiaye ñu yaakaar ni rek lu yàggatul dara yoon mën na ko teggi loxoom moom Cheikh Bara Ndiaye nag ñu ngi ko doon toppee daal yëngal kaaraangeeg nguur gi ak jëf yu mën a jaxasee dalu ko réew mi àttekat bi itam nag joxe na ndigal ngir daal ñu delloo Cheikh Bara ñetti jollosoom yu ñu tegoon loxo bu nu sukkandikoo nag ci maître Moussa Sarr di ab layookatam dañoo téye woon joll yooyu daal denc leen ngir rekk lu soxal wàllum lu ñu tigi te mooy enquête bi moom Cheikh Bara Ndiaye nag booba ba léegi daa tawat ba moo waral nag ñu téye ko ca barab ca barabu faju kaay ñu wéyal wax ci mbootaay gii di forum de justice euh, fiable ginnaaw nag bi ñu rafetloo ñàkk ya ñu dindi ca kër Ousmane Sonko ñoo ngi sàkku itam ci waa Pastef ñu moytu dal jëpp jëf ju jëm ci cokkaas ci saabal bu ñu fésal forum de justice fiable ñoo ngi xam ne ni nag yëg nañu daal ci tasukaayu xibaar yi ne daal ñàkk ya ñu tegoon ca mbedd ya jëm ca kër Ousmane Sonko yépp ñàkk ji nañu leen teg gi leen yóbbu loolu nag tax na mbootaay gi di rafet lu jëf ji nguur gi def te bokk nag ci li indi ak dal ci géewu politique bi ñu teg ci nag ñoom forum de justice fiable di woo daal Ousmane Sonko njiital Pastef les patriotes mu dox moom itam nag ci yoon woowu ji ma moytu daal jëpp jëf ju jëm nag ci cokkaas wala xëccoo ak campé fii te mooy mooy institution yi euh, bokkeef gi te mooy république bi wala daal euh, lépp loo xam ni mën naa indi ak jaxasoo ci daluk réew mi ñuy daaneel nag daal ci ñaax mbooleem way politique yi euh, ñu liggéey ci luy gën a indi jàmm ci géewu politique bi ngir ñu mën a dëgëral li ñu jot a am ci wàllu démocratie ci Sénégal ñu daaneel ak wax ci gouvernement Sénégal gi nga xam ni nag ni ki tey jii danañu janoo ak way kat yi ci njiital nag kii di eh, Abdou Karim Fofana yor seenu kàddu ak jëwriñ ji di Isaaqa Diop ñu dénk ko nag lépp lu jëm ci wàllum wala mi maanaam eh, taataay ndox yeek yani demee ñoom nag daal ñu fës yéene janook askan wi rek ngir daal waxtaan ak ñoom ci wàll woowu jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg nun ci Ali Imran TV seen mbokk la woon Mor Mbaye ngir Ali Imran TV jërë ngeen jëf watil qur'ani thumma as-salatu ala an-nabiy al-mustafa khayr al-baraya min bani adnani ya taliban subul an-najati wa raghiban